asalaamaaleykum sëñ Tawfekh Mbaye ñu ngi lay nuyu di la siyaare. maa ngi lay siyaare bu baax te di la bëggee man itam di la jëlal siyaar bi di wax jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke di ñaanal Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou suñu borom yëpp kay leeram taas ñu ci barkeem te yàggal fa njabootam gi yëpp di ci jiital Serigne Saliou Thioune suñu xalifa borom ndigal waaw. doo gisee li nga xamante mooy raaya musique bi nga xam ne ñu koy faral di ko def chaque at. at bi paas nag amul ndax mbas mi fi amoon te noo ban gis-gis nga si am. waaw gis-gis bi mooy sant rek ndax yàlla mooy dogal lu ko soob ci jaamam te jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñoom ñi nga xam ne ñoo ëmb yëf yi muy Souleymane mi nga xam ni ñun ci moom lañ jaar egsi ma koy nuyu def nañ liñ war a def lépp yàlla nag moo dogal ca booba ne du am dogal ko tey jii kon ñoo ngi ñaan lépp lu fi waaye di wut si yàlla na la ko suñu borom jox waaw. waaw daal bu jógee ci li fexe laay tamit si projet yi ak actuellement li leen war a mën ci koor gi parce que ñu leen di xaar nu mu mën a ñoon lool. waaw koor gi moom man maa ngi koy tàmbali suba. incha allah na ñëpp xaar incha allah. ci sama page YouTube. clip bu bees tàq. Mm-hmm. bu ma santati sama sang bi Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou. Mm-hmm. man suba laay tàmbalee cappe yi ci biir koor gi incha allah. incha allah kon jërëjëf rendez man ku ku lu baax rek ñuy tudd. te waaw bu ñu tam gën def suñu ñaan tamit. amiin amiin amiin mbokk ak ak yi nga xamante ne ñooy waa Dakar midi ngi toog ak yow moom nga xam ne tey ñu waxtaan moom tout tey si mbirum gisee li nga xamante mooy Raaya Musique ah, tey ñu gisee li nga xam ne événement bi nga xamante mooy Raaya Musique ñu sélectionné si tey waaw rafetlu ko rek ndax ñun bu ñu nekkee ay ndaw di def euh, li nga xam ne moom moo ñu war li ñu war mooy encouragé ñu te lii encouragement la ndax nga nekk xale def benn clip wala nga def benn son bu neex mu def tole son bu neex ñu jël la dana la ci euh, lu mel ni Rai Musique pour jox la lu mel ni euh, euh, gën a may a góorgóorlu sa tànk fu baax waaw dañuy a rek moo tax ñu kontaan ci vraiment vraiment tey am ñoo xamante sens tey pour bokk ci li nga xamante ne mooy Rai Musique yéen en tant tey ay xale ay jeunes tey ngeen ñëw nit ñi boole leen université yi toll ban lu leen def. waaw kontaan ci rek kontaan ci rek mooy mooy mooy li ma la wax centre mi ngi wane ni que ñu ngi góorgóorlu mi ngi wane ni ñu ngi indi suñu touche personnelle ndax bu ñu ñëwee fekk suñu papa yi ak suñu mool suñu mag ñi euh, di tàgg yonent bi euh, nekk 10 bu ñu ñëwee du ko réew bu vingt changer niveau bi indi affaire bi def moderniser ko dafa war a moderne kon nag bu ñu defee noonu ba ñu namee ni cuuraayu musique moderne moo ñu ko may moderniser affaire yi def ko yëfi xale moderniser affaire yi wane ni tamit que ñun ndaw ñi dañoo war a fonkaat yonent bi ñun ndaw ñi dañoo war a xamaat ki ñu yor waaw moo tax ñu ñeme ñu ci ñu kontaan ci loolu mu nekk loo xam ne fierté la bu baax baax suñu ñu namoon leen ngeen toog xawoon lenu li nga xamante ne tey mooy corona yàqu na lu bare bare ci ay yeneen événement yi si lan lañu mën a xaar actuellement nii waaw mën nañu xaar su suñuy événement continuer mi comme que nag bàyyi nañu pour ñu def suñu événement dañuy xaar rek bi lépp jàll incha allah rabi ñu daal di ko ah waaw ñu ñëw daal ak beneen doole ñu ñëw daal force bu soobee yàlla incha allah rabi ñu fii la ëpp maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw tey gisee li nga xamante ne mooy waaye musique bi. Mhm. ñu woo ci yéen yi nga xamante ne tey yi yéen ak yi nga xamante ne mooy tàggatu yonent bi. Mhm. ban liggéey nga ci am faam. waaw waaw ngi wax euh, jërëjëfati Serigne Touba. Mhm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jara am maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Mourideen di yàlla bu baax nag eh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi te itam di wax ne alhamdulilah ba nu fekkee li nga xam ni Euh, mën naa ni mooy li gaa wootee te itam di ci joyal ak cant ah, ndax mën naa ni doonul ak njàmbaar du ak yaafus maam tam itam euh, ak cant la ngir nu nu nu nu maam suñu borom ay nit sabablu woote mbir boole la ci ñi tànn loolu ak cant la te yaakaar naa ni wax dëgg yàlla euh, ku borom bi suturaalul mën naa ni euh, sunu borom sax moom moo moom mooy suturaal jàmm. waaw te ñi ci bokkul sax moo di suturaal. waaye waaye lépp rek dama ko bëgg a maanaam dama ko bëgg a dolli ci ak cant. waaw maanaam boole gi ñu ci boole dama ko bëgg dama ko bëgg a delloo ci ak cat. ak ngir ñun biñ ci bokkul sax ñoo ngi dox ay jéego. ay jéego ak Cheikh Ba. dëgg la waaw Pape euh, mu ne nii ñu déglu li mooy weeru koor si yéen lañ mën a xaar Pape Faye actuellement parce que moom moo lañ nga lool lépp tënk lépp. yëngu-yëngu amul def ñu cant ñu def ñu dara fi mu ne nii seen la a xaar Pape Faye. allah waaw noo ngi noo ngi am mbégte ci itam di santaat yàlla bu baax ci fekkee gën ko fekkee fekkewaat waaw ah, yàlla nu ko weesoo jàmm yàlla nu bokk itam ci ñu koy nettali waaw di ñaan li nga xam ne moo fi xewoon itam suñu borom jeexal ko ci jàmm waaw ci barke yonent bi sallallahu ci kat Moussa borom noo ngi waaj waaw ñoo ngi ñoo ngi ci projet yi incha allah. bëgg nañu indi leneen. jox askan wi. bu soobee saa borom. waaw ndax ñun wax dëgg yàlla lu bëggal jullit yi rek. ak mbokk taalibe yi. loolu ci la ñuy dox ci la ñuy wax. jërëjëf ñoo ngi leen di ñaan bu baax a baax. suma xol seet na ci yéen. waaw saa borom na na leen gën a yokk. amiin amiin barke borom Tuubaa.